radiyallahu taala anhu wa boodu gannaaw buñ bu jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nag leen di yëgal siyaara bu ñu baaxoo def taax sa téeri jàpp nañ ko lewen de marché ya fas yéene woote mbokki jullit yi ci tur ñii nag may bëgg lim ci lañ bëgg wooyee waa Sénégal waa réseau Kool ak réseau Kaffrine sëriñ Mbay Penda Saaxo Maabo sëriñ Abou Dramé Kër Mamour sëriñ Jibel Saaxo Saaxo Sant sëriñ Omar Nebo Dramé Kër Matar Mbande sëriñ haali tumbe darame kër ŋaat alaaji abubu saaxu maabo imaamu maabo alaaji njaay kër haali maram alaaji maalik njaay kër ma njaay alaaji darame commerçant kawrak alaaji jomba nday darame kër sader omar nday darame kër sader daam saaxu caaxu mataar ak waa daayiratu muqarrabin omar jóob darame saalema mbay caaxu santi serigne galo ba medina taxo serigne jamba gay daru kër serigne dam darana taxo mat jagat tijan jay tindaray dayadam darana jenal kër tibe bay sutu darana kër ter gu serigne mo darana mbur ak wa dairatu salihin serigne muntaxa darana ko talu serigne daya taxo borom ko taxo seri ak njabot ala serigne taxo taxo seri maire mabo ali gay ak conseil commune ba yeb du préfet mabo ak ak fm alaaji ndango taxo ac président alaaji mo tuti darana gusra sëriñ Mbay Silli Saaxo Kër Madaar Mobe Aliou Cissé Kër Modé sëriñ Dam Dia Kër Modé Dia sëriñ Pa sëriñ Papa Diagne Ngodi sëriñ Abdourahmane Ndiaye Kër Samba Malick sëriñ Diallo Dramé Mbour Papa Diop Kër Ali Kër sëriñ Fana Maado Xadi Saaxo Caaxo Séri sëriñ Ali Ñang Fasir sëriñ Ibnu Dramé Dakar ak waa daayira Tousson Daay chef de poste Mabo sëriñ Esa Rama Kër Bulel sëriñ Taal Kër Matar Ajara Mohamed Lamine Dramé Porokhane sëriñ Ousmane Dramé Kër Ndega Suun sëriñ Ousmane Fatma Kër Mor Kumba mau dua ratus lima puluh tahun sendiri. Aduh lah sih kan mau dia Raja Omar ada drama kesehat. Terus mau ke Dakar. Terus mau ke Dakar. Aduh lah yang sanding. Bawa kerungkung gini. Berani sih berkeji. Alah bawa kur kurusi sih wan argumak. Bapun baik kau masih sama bu. Mau sih jambur. Mau jembe sih sih tambah jaga. Dah emang drama kan dia kesun. Jawab aku drama itu bangun. Mau turut ke juru duduk. alaaji Fama Dramé seen alkar Xuseen sëriñ Ba Barkeji Alioune Dramé kër Mor Kumba alaaji Anta Diaw Mati Ndaaye Dramé kër Masila sëriñ Modia Sine Dramé kër Seer Gumak alaaji Ousmane Ba Ndiobène Jagle góor gi saw kër Paate Muntaxa kër Modje Ndiaga Sine Dramé Taïf Babacar Si Kasan Tukulóor Ibu Gay kër alaaji Morawa Alioune Sawa Diaw Mati Babu Mbay Barkeji Jëm Dumbe Dramé kër Mamoud मौसर दरा में चांग कर उमर गई राज दरा में चांग उमर गई उस्मान दरा में दारू कर बाला मामर आवस पर ऐसे अब कबरिन रंजम सा हुकुमर ना कबरिन रंबो दरा में जेनार कर जिबिन इब्रो जुला दरा में कस्ते कुमक एलिस दरा में चाओ मदार मामर आवा मामर दरा में चाओ संजी अहमद लुम जमम बयान राजो कदे दरा में कसे सुंपू माले सा हो मावो राजो मादरा में चांट लेमिन दरा में चांट Serigne Dramé Bayte Santi Omar Satu Dramé Jamal Sadio Sow Medina Thiaxo ñu leen di yëgal siyaare buñ baaxoo def caaxo ko séeri jàpp nañ ko le 22 mars ñu ngi wóor jigéen doxoo mag doxoo ndaw képp ku wax sa doon la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah ñu ngi lay woo ci siyaare ba siyaare bi nag ay taalibe ñoo koy defal seen sëriñ moo tax dëkk buñ dem lenn ci taalibe ya dañuy jël kenn wala ñaar seen tur ci la ñu xooyee waa Sénégal yëpp ku ko dégg nga xamee ko noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu radiyallahu taala anhu wa bëdu gannaaw buñ sant yàlla bu jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokki fii nag saalu ñu leen di yëgal siyaara bu ñu baaxoo def saaku sa séeri jàpp nañ ko le 22 mars